ci ci ati gàddaay gi tolloog 639 ci ati tubaab Amwaas di dëkk boo xam ne wax nañ ni mi ngi nekk ci Palestine sorewul ak Quds daanaka ay 30 kilomètres rek lañ xaw a lañu lañu xaw a soriante waaye mu doonoon mbas moo xam ne yebul woon ci dëkk boobu rek dafa tasaaroo woon comme ni ko xamee ndax mbas wala pandémie wala. loo xam ne épidémie loo xam ne bu amee du yam ci gox ba nga xam ne fa la fa la feeñe waaye day law ba àgg ci ay gox yu bari loolu moo ci xewoon fekk na booba sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi nekkee ci xamal gi ko yàlla xamal ay mbir yoo xam ne day war a ñëw te war a tegtale eh, jegeek bis penc mu am ci ay mandarga yoo xam ne mandarga yu ndaw la am ci mandarga yoo xam ne mandarga yu mag la ni mu ko jàngalee junjoon na ne tuddoon na ay mbir yu mat juróom-benn mbir yoo xam ne mi ngi ko tudde woon ci xaswa Tabuk wax ne dana ñëw ci kanam te bokk na ci juróom-benn yooyu loo xam ne da ko tudde woon muutaan muutaan nga xam ne borom xam-xam wax nañ ne booba mi ngi doon junju taaxunu amwaas bi may may may waxtaani nii may junju saxaabi bu ñuy wax Awf ibnu Malik wax nañ ne moo fekke woon waxtaan wa keroog sallallahu alayhi wa ne ko limal juróom-benn yoo xam ne su ngeen ko gisee na ngeen xam ne mi ngi bokk ci màndargay saa yu ndaw yi maanaam ci màndarga yi ndax yu mag am yu mu tuddoon ci ak demam ak génnam àddina moom sallallahu alayhi wa nga xam ne moo jiitu ci fukkeelu at ak benn ci ati gàddaay gi teg ci fatxu al quds mooy ubbi gi ñu ubbi fi ñuy wax Jérusalem quds moom it mu am ci ati fukk ak juróom ci ati gàddaay gi mu ne bu boobu jàllee nag dana am nag lu ñuy tuddee muutaan ak ndeete gum goo xam ne day niroog ndeete gi am ci jur yi eh, am na tawat juy dal ak jur goo xam ne bu ko daree dafay am luy luy luy yol di génn ndox muy muy muy muy génn ci bakkan yi nga xam ne lim ci rey day gaaw ba noppi day bari lool loolu sallallahu alayhi wa niroole woon ak pest bii nga xam ne moo amoon te ñu tuddee ko taawunu amwaas bi bi ñu ubbee Quds ci tënk rek ba noppi ñu am ndam lu rëy ndax dara gënul màgg loolu fatxu baytul maqdis loolu ku ne xam na ne ndam lu rëy rëy la ci ci ci ci ci taarix xeex ak romain yi daan leen ba noote seeni réew waaye suñ borom nag indi leen nag nattu boobu nag nattu boo xam ne dañoo xëy xëy rek wax nañu sax njëkkoon naa ñëw ci at mi ko jiitu ci atum fukkeel mi ak xëy na juróom-ñaar waaye dafa ñëw rek daal di daal di dem yàggul lool ñëwaat nag ci atum fukkeel mi ak juróom-ñett waaye li am solo fii ci mbas mii walla ci peste bi li ci am solo mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ci as saxaaba ridwanullahi alayhim taxawee muy bu am solo boo xam ne taarix da koy da tudd ba léegi boobu wax naa ne Seydina Omar moo nekk xalifa bi mu toogee ba mu yàgg xelam ne ci ne day dem nemmiku ji soldaar yi ak jullit yi nga xam ne booba seenub lim takku na lool macha allah ci Saam ndax demoon nañ ci daanaka fanweeri junni ak ak daanaka juróom-benn junni euh, bi mu ñëwee ba jub ba jub dëkk bi ba ba dégg nga tolloog fu ñuy wax sarr nga xam ne ci xaw naa jege Tabuk tuuti eh, ci la ñi nga xam ne ñooy kilifa yi féete Saam te mu dénkoon leen maanaam mbiri jullit ñi ku mel ne Abu Ubaydata Amr ibn Jarrah nga xam ne moo nekkoon amiru Saam ci boobu jamono génn ànd ak ay kàngam ci saxaaba yu tedd yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ñëw di ko gatandu si bi ñu agsee ci lañ ko xamal ne ko nag bu ñu sañoon nga bàyyi xel fi nga jëm ndax am na lu fi xew am na mbas mu fi xew te mbas mi dafa mel ne mi ngi tasaaroo te it mën naa metti Seydina Omar ni mu ko baaxoo def rek mu daal di dajale <coughs> saxaaba yi diisoog ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci ansaar ñu bokk ci mu dégg al muhaajiroon maanaam masiixatu Quraysh yi nga xam ne ay mag lañu te bokk ci Quraysh kenn ku ci nekk mu laaj la xalaat ñii wax ne nañ dem bañ ragal bañ def dara rek ñu dem rek ndax ginnaaw lu yàlla dogal la moom nañ dem ñenn ñi ne déedéet nañ wàññi ko Seydina Omar ci xalaatam ak ni mu jàngatee doonte booba texte bi war a leeral yi fi dëgg-dëgg ñëwagut mu ne moom day wàññi ànd rek xalaat yi ñi nga xam ne ñoo wax ne dañuy wàññi delluwaat Madina Abu Ubayda mi nga xam ne mooy aminu hadihi al umma wax ko ne ko ah ndax dangay daw dogal dogalu yàlla yaa Omar mu ne ko ah waaw <laughs> damay daw dogalu yàlla damay daw jóge ci dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla teg na sax ne wax ju am solo ne ko aka neexoon keneen wax lu mel ni lii nga wax ku dul yow yaa Aba Ubay yaa Aba Ubaydat aka neexoon keneen wax lu mel ne lii nga wax nga xam ne kon am na loolu wane na fi mu teg saxaabi yu boobu ak wàccuwaay bi mu ko jox ak cir bi mu ko jox mu ne ko damay daw jóge ci dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla daal koy misaal ne ko tey boo yoroon say giléem wàcc ci benn xur côté bi naat lool bi bekkoor lool ngay sàmm ci côté bi naat te ñaar yëpp di nekk dogalu yàlla ndax suñu borom la soob mu naatal fii mu soob ko mu bekkooral fii mu ne ko kon noo def mu ne ko waaw loolu damay damay sàmm mu ne kon noonu noonu la mel noonu la mel waaye dañuy kon damay daw ci damay jóge jóge ci loo xam ne yàllaa ko dogal jëm maanaam euh, mbas mi ak ak nattu bi suñ borom a ko dogal waaye suñ borom it mooy dogal it ne boo mënee rawale sa bakkan ba mën a muccal sa bakkan na nga ko def ci anam gi nga xam ne moom la la ko sariya sant ak diine di diine sant bi ñu bi ñu waxtaanee ci noonu ba àggal ndekete am na beneen saxaabi yi boo xam ne fekkewul waxtaan wi te am na lu mu déggoon ci sallallahu alayhi wa sallam muy Abdurahman ibn Awf fekk dafa génnoon ci ay xëy na yitteem bi mu ñëwee. mu ñu ne ko ayu ah, kat am na waxtaan wala firaws diggante Omar ak Abu Ubayda mu lu mu doon ñu koy nett li mu ne ah loolu de am naa ci xam-xam am naa ci xam-xam la ñu ne ko ah, xam-xam mu ne ah, mas na ma dégg day sallallahu alayhi wa sallam ne li ñuy tuddee mbas wala peste bu ñëwee ci ab dëkk su ganasee ci ab dëkk kum fa fekkoon bul génn koo xam ne nag fekkula la fa nga xam ne nekkoo fa bul fa dem loolu moom déggoon naa sallallahu waxoon ko loolu yaakaar naa bu ñëwee ci ci bind yi yi ñuy war a mën a jëlee ci taxawaayu saxaaba yi ak ak taalibe yi ak sëriñ bi ci boppam dana leer nee na Omar dal di am xol bu féex lool mu daal di sant yàlla daan fekk ndax fekk loolu dafa daa ñëw dajeeg lim xalaatoon ak lim lim lim bëggoon euh, waaye mu bi mu teewul bi mu demee itam. xelam ak xalaatam yépp mu ngi ci mbokki jullitam yooyu abu ubaydata mi rek nga xam ne ku seeroon la ci omar omar fonkoon la nga xam ne bind na ko ay bataaxel ngir bëgg koo convaincre pour mu jógee saam ñëw madina waaye waaye moom itam muy borom pas-pas bu dëgër ku ne xam ne ñoom seen wàccuwaay ak fi ñu toll ci ngëm mu xamal ko ne ko daal rus naa di bàyyi samay bokki jullit fii ñoom rek boobu mooy seen amir boobu moo nekk amiru saam di ñëw Madina ngir rawale sama bakkan lu man di xew daal dama koy bokk ak ñoom lu metti metti rek dana ko bokk ak ñoom nga xam ne bokk na ci saxaaba yi nga xam ne ñoo njëkk faatu ci pest boobu bi amoon ci Amwaas ak Sham peste bi wax nañ ne dem na sax daanaka ba Basra nga xam ne dugg na ay Iraq Abu Ubayda kon génn àddina ak ñeneeni yeneeni saxaaba yu tedd yu màgg yoo xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom rek doy nga sëkk kuutaay ci jullit ñi ndax bi mu fi jóg bi mu bi mu laataan faatu wala bi mu faatoo la Seydina Omar joxe ndigal ne nañ fal Muaas ibnu Jabal mi nga xam ne booba ci fanweeri at ak ñett rek la toll booba di ndaw Muaas euh, jël li nga xam ne mooy kilifteefu jullit ñi waaye moom it fi ñu toll ci seen boroom ak xam giñ xam li ne ci yàlla teg la nattu bu mel nii nga muñ ko ci pay ak ci tuyaaba te lépp ñu jàng ko ci sallallahu alayhi tax moom it mu ne ngéej a am li abu ubaydata am ba bokk na ci xutba yi nga xam ne moom la mujj def bi ko yëfi dalee wala sax lu jiitu mu koy dal da ko da ko koo ñaan day mel ne def na day ñaan ne ak ak a neexoon Muaz ak ay waa këram ak i njabootam am ab cër ci nattu bi yi nga xam ne sallallahu alayhi waxoon na ne mooy yërmaande la ci ñi gëm yàlla pes ak lu niroog moom yërmaande la ci ñi gëm yàlla waaye itam daawatu sayidna muhammad la waxoon naa ko léegi tàmbali bi moo ko xibaaroon ne dana am dana ñëw waxit ne mooy deewuk ñu baax ñi ñu baax ñu ci bare bare bari ci pes am ci bari ñoom ci ñoom faatu nañ ci pes bi mu ñaanee ñaan googu yàlla nangul ko ko mu dal ko tàmbali ci njabootam doomi boppam Abdurahman ibnu Muad pest moom it wax nañ sax ñaari soxnaam bokk dañ ci ñi nga xam ne pest bi rey na leen moom moom Muad ci mu génn àddina ci pest boobu ginnaaw bi yeneen saxaaba yu bari topp ci ginnaaw Muaz ak Abu Ubaydata Yazid ibnu Abi Sufyaan wax nañ ne ci pest boobu la demee alfadl ibnu al abbas ci peste boobu la demee shurahbil ibnu xasana ci peste taawunu euh, amwaas boobu ci la demee ak ñeneen ak ñeneen fekk na booba madina ñu ngi jànkoonteeg xiif bu métti li ñuy wax crise alimentaire bu metti ba at moomu ñu tuddee ko atum amul ramada amul ramada nga xam ne booba suuf si dafa ju soppiku couleur bi soppiku amee dégg nga doom dóom ngir xëy na ngelaw li ngelawul bekkoor lu tàng li nga xam ne mooy upp suuf si ci ni ci xëy na ni ko ñenn ñi firee ba tax ñu tudd ko amul ramada nga xam ne booba xiif bi métti woon na métti goo xam ne Seydina Omar def na ci ay effort yu bare bari ndax daan am ñu daan jóge ci euh, ah, ci ci ci ci àll bi maanaam ci bowaadi yi di ñëw di wut si ndimbal ci Madina te booba fekk na daanaka am na guddi goo xam ne Seydina Omar dafa génn comme ni mu daan def di rond di rond déggul genn kër kuy wax kuy kuy waxtaan wala kuy ree wala kuy ngonnal mu laaj lu xew gisul kenn ku ne ci mbedd yi di yelwaan mu ne waa ana yelwaankat yi ma daan gis ci mbedd yi ana lu waral kër yëpp ne selaw ma àll ne selaw kenn kenn yëngatuwul kenn waxtaanul kenn reewul ñu ne ko ah xiif bee metti ndax at mii moom toquk ndox wàccut li liñ dencoon lépp jeex na mu daal di nag soog dem ubbi baytu maalil muslimin dimbale ci ñenn ci ñi nga xam ne ñoo soxla woon dimbal ci boobu jamono kon ba tey fo yaakaar naa bind ngoog boo xam ne moom it ki ki doon kilifa te ji te jiite mbooloo mi euh, war na am taxawaay yu mel noonu Seydina war amoon kon peste boobu rek bu ñu ko doon tënk ci ñi fi ñi ñi ciy ñàkk seen bakkan ci jullit ñi wax naa sànq ne booba kuréeli jullit ñi maanaam seen soldaar yi ñëwoon Saam ngir xeex si matoon nañ fanweeri junni ak juróom-benn junni wax nañu bi ñuy dellu juróom-benn junni yi rek ñoo dellu fanweeri fanweeri junni yëpp dañoo faatu. kon yëf yi yàgg naa metti yàgg naa metti loolu kon tënk la boo xam ne manees na ko manees na ko fàttalikoo wala wéttalikoo ci loo xam ne naka jekk amoon daan na am te wax nag mbas bi mbas mi ma may uh, tudd may ni wax nañu mooy mbas mi jullit ñi njëkk a dund ci mettiwaay nga xam ne uh, ba mu ba mu taree ba tar uh, amr ibnul as moo wutu maas ibnu jabal moom moo leen ci génne ci benn stratégie boo xam ne da koo tëral wax nañu ci digal Seydina Omar la ñenn ñi ne moo ko xalaat waaye bi ko Omar yégee da caa ànd mooy dafa ne gis naa ne lii niru mbas ci dëkk bi daal muy peste bi daal bokk na ci li koy yokk ak li tax mu law mooy jaxasoo bu bari bi <laughs> jaxasoo bi gaa yi bañ da ko jekk loolu daan na waral mbas yi ma lu mel nii di tasaaroo mu ne kon gis naa ne ni ñu war a def mooy ñu génn dëkk bi confiné wu ca montagne ca doj ca banlieue ba bañ ne ci biir dëkk bi buñ bi ñu ko defee ab diir rek ci lañ gis ne ndax ndax ndax nee na da da koo misaal ci maanaam sawara nee na sawara su gisatul lu mu lu mu lu mu lu mu lakk dootul tàkk waaw gisul lu mu lakk dootul tàkk te bokk na ci li koy dajale mooy nit ñi. mooy daanaka mooy matt mi nga xam ne moo koy taal nga xam ne contact yi am ak jaxasoo beeg yooyu tax mu ne kon nañ génn fii fépp te dem ca montagne bi ñu ko defee rek diir bu gàtt ci la mbas mi daal di jeex euh, ginnaaw ba ay crise toppaat na ci wax naa ko léegi ndax lu mel noonu bu ñuy faaw mu andi ay ay crise ba ci wàllu euh, sax nu ñuy fe nu ñuy fexe ba ñi fi jógee ak ñi leen war a doon sax nu ñu leen di doon sax posé woon na problème xam ne Seydina Ahmad mu mujj déplacé wul boppam jóge Madina ñëwaat Saam lijjanti loola wax ne bu kenn donnloo koo xam ne dafa faatu nga koy donnloo ko faatu nga koy donnal ko faatu waaye ñi ñi ñi ñi fi nekk di dund nañ donn ñu faatu nga xam ne loolu euh, te booba fekk na it seeni noonu ñu ngi leen di fuglu nag xam nañ ne am nañu jafe-jafe ñu bëgg ñu fas yéene bunt bu ñu jaar ba jekkili leen nanguwaat seen suuf yooyu nga xam ne dañ caa noonu lool xeex xeex bu metti jihaad jihaad ju tar sa ko jot kon loolu ci tënk mënees na ko mënees na ko mënees na ko fàttalikoo xew-xew boo xam ne amoon na te niru ak xew-xew yi nga xam ne ñu ngi koy dund te saxaaba yi taxawoon ngi taxawaay bi mel ni ne bu ñuy jeexal waxtaan wi danañ tënk yenn bind yi nga xam ne mënees na ko caa mënees na ko caa niitoo bi ci topp ci loo xam ne niru na lu xewoon démb te jegeñu mooy li amoon njaareem wala mën nga wax nag moom it peste la taaxoon la amoon ci réew mi amoon ci réewum Sénégal Sénégal peste ñëw na fi ay yoon xam ngeen ne pestu njaareem bii sax ci gëstu yu ñu doon def gis nañ ne nekkul loo xam ne dafa ñëw benn yoon rek continuer mais ñëw na dem ñëwaat dem ñëwaat dem te it am na fi ab diir ndax boo xoolee wax nañ ci début siècle bi maanaam mille 1900 yi ci la peste bi tàmbali feeñ fu mel ne Ndakaaru ba am na fa ay dëkk yoo xam ne ay ay quartiers yu mag yoo xam ne daanaka da ko reyee nga xam ne dañ koo sax éliminer ay mbooloo yu bari ay daanaka lu lu xaw a jege ay trente mille ci ay ci ay nit ñu faatu faatu nañ ci bi mu njëkkee feeñ rek ci xëy na ndakaaru ak li ko ginnaaw bi nag la tàllalu tasaaroo jëm ci noor bi dem na ba Mauritanie dinañ dañ ko tuddaat léegi eh, ci kanam ñëw na itam ci centre bi fu mel na njaareem am na Kaolack ak yeneen dëkk yi donte njaareem sax ci ni ko boroom xam-xam yi gëstu ci fànn googu wax nañ ne àggul woon ci ci ci xëy na benn métit bi par rapport rek ni li li amoon fi mel ne Ndakaaru ak ak yeneen dëkk yi ci des waaye metti woon na nag metti woon na euh, mu mu mu gënoon a tare njaareem nag diggante 1914 jàpp 1918 ba 1920 1920 wax nañ ne mooy sax at mi gën a bari lu pest bi rey ci Sénégal 1920. xam ne boo delloo ci ci gëstu yi ci document yi gis ay chiffres yoo xam ne indi nañ ko ne maanaam nombre cas yi ak nombre moor yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan waaye teewul xam nañ ne <clears throat> dafa am rek diggante boo xam ne dafa dafa woyof wàññiku waaye peste bi continué na ba daanaka 1938 ci la tàmbali nag di jeex jeex ndànk-ndànk waaye fii fii nag li ñu fi yitteel xëy na du loolu lépp waaye li ñu yitteel mooy. bi mu amee nag njaareem te booba fekk na sëñ bu mag baa ngi fi nekk fa it ak ay waa këram ak njabootam naka la ko ku baax ki doon dunde ak njaboot googu mu bokkaloon nekk ñu méngale koog li nga xam ne moo amoon ca Amwaas sëñ Xaadim wax na ko ci tàmbali bi Cheikhul Xadim lépp lu daloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daloon ay saxaabaam mën na caa bañ a mucc moom waaw <laughs> mu am ci wàll ndax cër ba ak waaw moo moo toll noonu ak cofeel gaag ak yi ci des bu ñu delloo ci sëñ bi Lamin Jóob ci alminaxul miskiya tënkal nañu rek pest pestu njaarim boobu ni mu meloon ak ni mu mettee woon fi muy waxe mbirum buuna ibnu taalib moom mu nga xam ne daan jàng xasaayit sëñ Tuubaa kero bi mu bi mu nelawee bi mu faatoo te faatu ci contexte waxuma ne euh, moo ko yóbbu waaye ndax sëñ sëñ bi laa mi tudd waaye dafa dama ne ci contexte boobu contexte peste bi ci la faatoo euh, sëriñ bi wax ca lam ca wax génnee mbubb wax ne mbubb mii nañ ko ko kii ndax salaa la moo ko wodde bu mu weex wax ne biñ ko dégg nga dencee ba ñëw mu laaj leen mu walla boog mu laaj boroomam mu laaj boroomam euh, mbirum na moomu ak ñam bokkal nekk fañ ko denc fekk dafa fekk dafa wax ne moom day euh, fee mu dëm fee mu jëm tey danañ xam ne ku am solo ñëw na fa ndax la ko fa yàllay fayee ci liggéey bi mu doon liggéeyal yàlla ci xaside yi du du doon loo xam ne day yem ci moom rek waaye da koo misaal ci gan goo xam ne dafa ñëw indaale ay teraangaam mu ne ndax gan googu bu ñëwee teraange yi ci moom rek la yem wala ñim gane si ñu ko déedéet mu ne teraange yu baree bari la yoo xam ne bu ñëwee dana ko weesu moom weesu ñim gane si ba sax ñee nga xam ne seen yoon newu ci woon sax dana leen laal waaye mu ne nag <clears throat> faw mu listixaar xool ba xam xéewal googu ndax booba sëñ sin billahi day day day wax ci ni niñ doon denc nit ñi bu ñu faatoo ci pest bi xam ngeen pest lu doy waar la ndax jàngoro joo xam ne comme dal dañ lay ber comme li am ci wàllu maanaam corona bi dañ lay quarantaine d'abord nga xam ne euh, ci ci ci document yi ma doon yër démb rek gis naa ci ne même Sénégal gii booba jamono yooye ñu bari dañoo defoon ne peste bi te sax loo am na loo xam ne xëy na saxal na ko ne am na ci pest yoo xam ne maanam jàngoro ji daan na bàyyi koo ci lu mel ne ay xeeti jinax ak ay kañaak yooyu wax nañ ne booba ku ci masaana rey kaña sa kër da koy nëbbu doo ko ñëwee siiwal ndax bu ñu ko xamee wala jinax non seulement yow yow yow mi nga xam ne yaa ne ci kër gi moom da ngay génn kër gi waaye njaboot gi yëpp la ñuy buub yóbbu kër gi dañ koy lakk quarantaine yëpp yóbbu leen am na fu ñu daan wax lazare lazare lañ daan yóbbu ñi nga xam ne ñooy ñoom ñoo ñu maanaam ñoom la ñu war nga xam ne genre maanaam berukaay la boo xam ne bu fa lañ yóbbu di leen ber bu noppi kër ga dañ koy lakk moom kenn dootu fa dëkkati xëy na mën naa sax dégg nga jaaree foofa gent euh, sëñ Modou Lamine nag di nett ne bi nga xamee ne sëriñ bi mi ngi wax nag ci mbirum buuna moomu ba àgg ci ne faaw ma damay laaj sama borom ba xam ndax may yooyu ak xéwal yooyu mu yóbbaale day yam ci ñi ko war a am rek wala day làmb ñi nga xam ne sax xëy na mën naa am ñoom bokkuñu ci woon te doonuñu ay jullit ak yu mel noonu nee su borom tontu ko ci alquran ne ko wa inna lakum fi l an'aami la ibratan nasqiikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saairan lisharibin kon loolu li sëñ bi laa ne li mu bëgg a wax rek mooy xaasun bi yi maanaam euh, may may yooyu ak xéewal googu daal mu ngi jagoo rek ak njabootam gi nga xam ne ñoo gàddaayoon fekk si ko bàyyi ko ci ay réew yu fasanti ko te yàlla rek tax leen a jóg ñu sax ànd ak moom ba yàlla moom leen ñu faatoo njaareem googu yi ni ni suñ boroom mën a fekke di diggante chébrit ak ak deret mu mën faa génne soow mu sell mu weex tàll ñu mën koo naan mën koo jariñoo noonu la mën a fekkee ci biir ñu baax ak ñu mel neneen ñu jaxase leen denc leen fenn mu mën a tànn ñu baax ña seppi leen ba ñu set ber leen fee di leen teral teraanga joo xam ne ju ju ju kawe njort la te ñee ca des moom mel ne sax dara xewut ñoom duñ ci yëg dara mu ne sëñ bi laa bi nag mu ne nag digul li mu ci teg na mu ne nag jamono bi ma bi lii di xew nag booba sëriñ baa ngi maanaam njaareem béréb bi di bérébu kéefër at yi at yi waxul at mi de at yi di ati mbas wal awaamu awaamul waba ndax comme ni ma ko waxoon léegi mbas bi dafa yàgg léeg-léeg day am tuuti rek mu xaw a dal giim ba mu yàgg mu jógaat mu ne booba ñi doon àtte ci réew mi itam ay nasaraan lañ ñu gaw jullit ñi ak yéefar yi yépp ci benn béréb nga xam ne quarantaine boobu bu ñu koy def duñu wax ne kii jullit la wala kii murit la wala kii euh, ab tubaab la wala kii euh, ab ceddo la ñëpp lañuy boole tëj leen ci lazare booba ñooy bokk lu ñuy lekk ñooy bokk lu ñuy naan mu ne waaye la ci gën a metti nag mooy al mawtu yaxsuduhum kalkala dee gi nag di leen faagaagal comme al muutaan boobu sallallahu alayhi wa sallam waxoon ca taawunu am wasba nee na àgg na ci ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ñu war leen di defar di leen suul am jafe-jafe ñi nga xam ne ñu leen war di berit am jafe-jafe ba waaye mujj nañ sax faaleetuñ loolu léegi dañoo fexe rek ba ci njaareem dañuy gas ak kàmb xam nu ñu ko waxee ci nga gu mag goo xam ne dañ day xóot ba noppi yaatu nee na bis bi daanañ toog bis boo xam ne fukki bakkane doomu aadama danañ faatondoo ci bis bi diggante ku baax ak ku mel na neen waaye nee bu ñu leen di dugal ci ka ci kàmb gi kenn du leen laal ndax xam nga peste moom ku ci faatu li ñuy njëkk def mooy sotti la grésil kenn du la laal xëy na jullee bu dee julli ba su ko jullee xëy na waaye sang nga sax ñu ko def booba dañuy dañ dañ lay suulaale dañ koy suulaale moom ak ay yéreem ak lépp te buñ koy sool kenn du ko laal itam sëñ bi laa ne ne ay buum la ñuy jël takk ci seen i tànk di ko diri ba ca kii ba ca kàmb ga ñu dugal xëpp suuf dana duñ suul sax dañuy xëpp suuf rek ngeen di xaar ñeneen faatuwaat ñu ñu suul leen ci kàmb gi nee na mën naa dem sax ba suba mën naa dem ba suba nee na su ko defee su kàmb gi feesee nag wax lu lu metti lu daw yaram euh, min jiyee fil abraari wal fujjaar day lu doy waar la nga xam ne day mujj ñu baax ñeeg ñëpp rek ñooy jaxasoo foofa ba xeet gi soppiku nee na bu feesee nag ñu soog a suul nag kàmb ga mu ne nag xaal bii nag dafa sax ay at ay at yoo xam ne ñu ngi doon dund lu mel noonu misaal yi ci ma joxe bari na ginnaaw lii sëñ Mady Lamine wax metti woon na metti goo xam ne àggoon na ci ñëpp jaaxle xam nañ ne kenn rekk moo leen ci mën a xeetli ginnaaw yàlla muy Cheikhul Khadim ci ay ñaanam ci jubóog boroomam waaye ànd ak loolu lépp nag teewul sëriñ bi bàyyee boppam ak yàlla ngir di leen jàngal tawxiid wéetal yàlla di leen jàngal nangu dogal ak bàyyi sa bopp ak sa boroom ñu ngi fàttaliku xasida gi sëñ bay jaxate defoon nga xam ne wax nañu bi mu ko defee da ko yónnee waaye sëñ bi mel na maanaam lu ko tàngam lu faale woo ko sax mu bàyyi bi sëñ bi ñëw ci jàkka ji ci xëy na yenn riwaayaat yi mu ñëw yëkkati xasida gi ci kanamam ba àgg ci bayitam wu si woowu waxal nag ci mbas mi yow sa nit ñaa ngi jee tinul ñëpp yow boo tinoo yàlla tin daal di ko ne bu ab sàmm nee cell jur gépp jee bu jur bu jur gépp jeexee lu muy sàmm kon wax ne sëñ bi ne ko taxawal doy na nga xam ne doy na jooju wax nañ ne daanaka ca la jaare yëf ya daal di tàmbali di woyof di doy waaye beneen bi ci des beneen beneen beneen beneen mawqif bi mooy ci loo xam ne bu ñu ko doon topp mën nañ ci tudd yu bari xëy na am na yoo xam ne sax jurul jaar ci digg bi ndax dafay xaw a sensible waaye ku mel ne Cheikh Ibra Fall bi ma ciy gëstu dama ci laaj ndax damay dégg suñu bokki Baay Faal di nettali tolluwaayam ci mbas mi ci ci pes bi ci njaareem ba wax ne bi muy soog a ñëw njaareem kër gi mu njëkk a sanc wala quartier bi mu njëkk a tabax ko mooy boobu ñu tuddee madinatu ma al madina munawara man moom la ko tuddee woon nga xam ne mi ngi ci yoonu ndindi wi yoonu maanaam ndindi wi jëm yu nekk naaw njaareem euh, waaye bi pes bi ñëwee jàpp lu bari ci njabootam sëñ Assane faal moom sëñ Mbir Moussa Fall dem baa ngi ko ci laaj mu ne ma lool lu wér la ndax man mii sama maam ju jigéen ji jur sama wayjur bu góor ci fest ba la dem te mooy wayjur sëñ Mbir Moussa Fall mu jigéen euh, njaboot gi ñu bari làqu ci xam ngeen ne ci biir kër sëriñ bi sax bari na ñoo xam ne ci waa sàq yi ñoo xam ne ci lañ dem waaw ak ci taalibe yu baax yu mag yi nee na waaye rakkam sëriñ Saliou Fall sonn ci lool ngir Cheikh Ibra jógee ci kërug madina gi ñëw fii tey ñuy wax kër seex ci njaareem tam tudde ko màkka màkka loy loy tudde ko màkkatal mukarram ki wax màkka loy loy nee na waaye booba seex ibra tawxiid ji mayu ko moom li daloon dégg nga abu abaydata moom it xaw na ko dal foofu mu ne moom daal du déplacé wu ndax ndax dee daal foo dem ma nga fa waaye bi ñu ko waxee sëñ mbag bi sëñ mbag bi doo ko wax ne ko ma sañoon nga jógee foofu te dem fañ fa fa fa fere yi bëgg nga dem fa ndax ginnaaw foofa moo dal xelu fere yi demal foofa mu ne ko am ah, na mbàkke damaa defoon ne dee moom fu ne la nekk rek mu ne ko waaw waaye nag ginnaaw moo dal moo seen xel foofu dañ ci jàngi sëriñ bi ni mu doon bàyyee xel masaalixul ayaan ak ki mu doon ak li ko yàlla may lépp sañ-sañ beeg yëpp waaye dana bàyyi xel loo xam ne maslaha ndax loolu mooy sharia sharia fu maslaha ne ma nga fa waaye xam na ne mbooloo maanaam njaboot gi jëmmi bi Ibra taxul muy wax ndax moom tawxiidam ju kawe ak fi mu àgg ci boromam may na ko mu toog fu ko mbas mi fekk lu ko ci fekk baax na da wax nañu sax dem na ba yónnee sëriñ bi sax ne ko bu fekkee damay dem naa dem tey su fekkee damay wér naa wér tey yooyu bàyyi xel dañ koy faral di la muy loo xam ne kon mett gi foo ko takk weesu na ko foo ko takk rek weesu na ko ni ma ko waxee léegi quarantaine gi it bi da ko daan nongu buñ ko masaan wax ne nañ leen ber ñi ñi mu dal nañ leen ber day wax ne nañ leen ber da ci daan ànd ndax nekkul loo xam ne lu wuute ndax loolu mooy li bi jàngale sallallahu alayhi wa moo ko jàngale te it yi dañ ko pratique wax nañu ko léegi ci eh, nii Amr ibn As doxale woon ci wàllu googu ba am nañ ci ci ci waa daari kaamil yi ni mu leen bëgge woon ni mu leen fank ndax fu ñu féete woon ci alquran am ci koo xam ne ñoo xam ne dañu la tëjoon ne ñii buñ génn am ci ko génn dem ñu wàll ko mu ñëw jaxasook ñoom ba wàll ci ju bare bare bare benn bi sëñ bi romb leen <coughs> xisa bi dafa ñëw ci ñaari version benn bi dañu wax ne dafa dafa dafa génn romb leen ñu toog yi fi metti lool mu xool leen bëtu yërmande xam naa ñu ngi koy jujju ne ko ci seeni xool yi nag seeni defin na ñaan boroomam daal mbas mi jeex ne ko sëñ bay jaxate waxe sëñ bi taxaw wax xamal leen na leen lii de na ngeen ko muñ bu baax te xam ne yàlla mi ko fi wàcc am na am na lu tax wàcce ko fi te su ko waree su su ko waree jeexal dana ko jeexal daane ndax da a foog ne dangeen ngeen a defee ne xejju yàlla mooy koo xam ne lu mu def mu neex yàlla ñu ne ko ah loolu lañ jàpp mu ne déedéet xejjub yàlla mooy koo xam ne lu lu lu yàlla def mu neex ko am nañu ko nettalee noonu dégg naa ak suñ xalum suñu saab sa mu ne soxna fat sile libaas bi yëf yi méttee ba ci kër gi dafa ñëw sëñ bi wax ko loolu ne ko ah, mbàkke de bu ñu sañoon nga ñaan sa borom daal mbas mi jeex ndax metti na lool jéggi dayo mu ne ko faati mu seen neen sëñ bi muñ ne ko moo ndax da ngaa defee ne daal daal koy wax li mu wax ñii ndax ndax da ngaa jàpp ne ki ki ki ñu wax ne moo jubóog boroomam mooy ki nga xam ne yàlla day dogal dara mu taxaw ne ko bu mu am mu ne ko ah mu ne ko déedéet ki jubóog boroomam dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne lu yàlla def rek neex na ko moom da see ànd waaye ba mu demee ba war a jeexit teewul am na ay xar baax yu mu ci def am na ñoo xam ne eh, day day ñëw jël loxoom te ci seen bopp raay ñu jóg wér pelak am na ci koo xam ne wax nañu kilifa la sax ba mu séenee sëñ bi ñëw loolu dal ko dafa tiital sëñ bi da ko ne ah mbàkke de li ma lay ñaan rek bul agsi ndax su ma sañoon man ma dem nga toog fi liggéeyal yàlla waaye sëñ bi daa daanaka diglu ko dafa wax ñëw teg jël loxoom teg ci bopp bi ja def la muy def ba mu ba mu kooree ginnaaw la wér kon teewul am na ay mbir yu doon xew ci biir waaye lim jëm jàngale nag nga xam ne moom mooy règle générale bi ñëpp war ko bàyyi xel nag te moo tax ñuy waxtaan mooy nag jël sabab yi jël sabab yi ci ñaan boroomam ak delloo leen ci yàlla ba noppi taxaw nag ci di leen dimbale ci ba ci biir ak ci biti waaw foofu nag danaa danaa fi tudd loo xam ne euh, sëñ Mourtala Bousso moo ko moo moo ko nettali sëñ sëñ Mamour Amdi moo ma ko wax ne moo ne moo ko wax ne euh, jamono jooju 1918 jooju mbas mi wax naa sànq ne dafa dem ba Mauritanie waa kër Cheikh Sidiye Cheikh Sidiye ci boppam yónnee ci sëriñ bi di sàkku ndimbal sëñ Mourtala nee na. wan nañ ko ci ñoom ci seeni i bagage gaal goo xam ne wax nañ ko ne ko gaal gi sëñ bi da ko di yoon xaalis ba mu fees dell yónnee leen ko xoolal loolu kon yaakaar naa bu sëñ taxaa jëlee ñaar téeméeri million ci njalbeenu euh, maanaam mbas mi yónnee ko ne nañ ko jox ko état waxul ne murid yi rek laa ko la laa ko jagleel wala jullit ñi rek laa ko jagleel waaye dana état laa koy jàppale ci xeex bi muy xeex force ko Covid boobu ñuy wax euh, ngir mu doon loo xam ne sama sama jàppale lay doon day mel ne kon sof na sof na ay ca la nga xam ne moom la maamam ju baax ja defoon ca njaareem taxawu ay bokki juddit yoo xam ne dañoo tollub diggante kon bokk yi loolu ay yenn la ci taxawaay yi nga xam ne Cheikhul Khadim taxaw na ko kon ci tënk rek ndax waxtu waa ngi dem mooy ne sëriñ bi moom dañoo jàngal ne lu mel nii bu xewee jullit bi dafa war a taxawee ñaari tànk sharia boole sharia ak xaqiqa mooy bu fegu waree na fegu su faju waree na faju waaye lépp nag na bàyyi xel wéetal boroomam tawxiid joo xam ne na muy amee mooy dellu ci yàlla wéeru ci moom xam ne yàlla saa bu indee nattu rek am na lu tax mu teg ñu ko te nattu yu ci bari ñoo ko sabab ñun doomu aadama yi suñuy moy suñuy bakkaar suñuy rëcc-rëcc suñu càggante zaharal fasaadu ji firndeel na ko ba mu ak yeneen ak yeneen sëriñ bi nag kon di delloowaat nit ñi ca loola moo tax tuub wéeru ci yàlla al inaabatu ilallah ak tuumaal suñuy bakkan ni mu ko jàngalee ci masaalikul jinaan wax ne saa bu nattu ñëwee bul tuumaal yàlla lu metti metti metti rek tuumaalal sa bopp jàppal ne lii ma dal maa ko teg sama bopp kon li koy saafara maa ko war a mën a dindi te mooy delluwaat ci yàlla nangu dogalu yàlla ba noppi nag tuubal yàlla waaye ñaan yàlla nag moo tax li sëñ Muntaxa wax discours bi mu def ci korite gi ci jumaa ji mooy li bi jàngale rek ci ci discours boobu laa dégge fu mu tuddee baatub corona ci discours yi mu def yépp ci biir mbas mi <laughs> te dafa ne corona da ko wax wax bu leer corona lu ko lu ko waay wax tooñ ko corona lu ko waay wax tooñ ko ndax lu tax yàlla da koo sàkk sàkk ñu digal ko digal ñu te fañ ko yam loo ne na fa lay yam mu ne waaye ñun nag ñu doon ay ñu ñu ñu ñu doon ñoo bindeef yoo xam ne dañoo nekk di dégg di di bàggante di déngi déngi diggante weddi ak ak ak ak ak ak réer ak gëm ak ak ak ak ak càggante maanaam di di ñun daal daanaka ñoo ñoo deful lañ war a def waaye bu ñu meloon nañu war a mel jaar fa ñu war a jaar topp ndigal yi kon corona bu ñëwee duñ ci am sax soxla. ndax dañuy xam ne bindeefu yàlla la boo xam ne euh, bu mat a bàyyi xel la te loolu ñu may ñu tënk ci mujj gi rek yenn ci bind yi nga xam ne warees na ko mën a jànge ci li ñu jëlee ci mbasum amwaas moomu ak li ñu jëlee ci mbas mi nga xam ne peste boobu nga xam ne moo amoon njaareem te lépp nag Cheikh Cheikh Mountakha jàngal ñu ko ci wàllu théorie waaye jàngal ñu ko ci wàllu pratique itam nag ndax tudd naa léegi loolu mu joxe ak yeneen yoo xam ne yemul foofu ndax ba mu joxee ñaar téeméeri million yu bàggal dafa wëlbatiku ne waa Touba nag bay ki sa wewu tànk yëkkati dund bu bari bu ànd ak koppar yu bari waa waa waa daara ji isbu tarxiya teg ko ci seen loxo ne leen na ngeen fexe ba séddale ko ñi nga xam ne ñooy population bi gën a néew doole bi gën a vulnérable ci waa loolu yaakaar naa bu ñu ko doon xayma ci xaalis wala ci koppar lu takku lay doon kon wone na yoon ne fa saxaaba ya jaaroon Seydina Omar defoon ko ubbi baytu maalil muslimiin dimbale ñi xiif dimbale ñi nga xam ne ñooy almankubiin Cheikhul Xadim ñëw def loola ndax kiy dimbale bay dimbale waa gànnaar ay naan na ñu ñu ñu ne ca gànnaar kon ñii ne ci sa sa sa sagroon kenn kenn waxaale wu leen moo tax kon bokk na ci liñ ci war a njëkk a jàngee mooy ginnaaw loolu ma junj léegi nangu dogalu yàlla bi ak bañ a tuumaal suñu borom waaye tuumaal suñu bopp mooy ñu wéeru ci yàlla saa bu musiba amee saa bu mbas amee ñu aju ci yàlla te bañ a aju ci coow yi ak rumeur yi ak jëmmi mbas mi ci boppam ñu xam ne mbindeef la rek mu yàlla sakk rafet njort ci suñu borom. boole ci di muñ nag lu metti metti ñu muñ muñ ngi it nag ñu def ko ixtisaaban li ma inda allahi subhanahu ngir sàkku tuyaaba ak pay ndax loolu maanaam moaas wax moaas moom ma tudd léegi bi ko pest bi tàmbulee feeñu ci loxo yi dafa dafa téye loxo bi di ko xool si yàgg mu ne ko li ma lay xamal day mooy fas yéene naa su may génn àddina bañ yóbbaale ci yow ak lii ma dal benn toq ba gën a tuuti ci ci ci loo xam ne yàlla taxut àddina maanaam àddina rek a tax nga xam ne kon ma ngay xalaat tuyaaba ja ak pay gu réy gi nga xam ne moom la ko yàlla dencal ca muñ gi muñ bas moom sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko sayyidatuna Aïcha ba mu ko laajee mbirum mbas ak jullit ñi nuñ ci taxawee mu ne ko mbas day lu yàllay wàcce la ngir nattoo ko jullit ak yéefar bu dee jullit nag yërmaande lay doon ci moom su ko muñee jullit ba ne ci la war a nekk yërmaande lay doon ci moom ndax bis penc ñi woon ci mbas ci pes danañ jekki ñi deewoon xare ñu maanaam soodaaw yi dekki ñi dee woon ci mbas mi ci pest bi ne ñun kat dañoo ñoo ñi dee woon ci jaasi yi ñoo bokk ñoo tolloo daraja suñ borom ne xool leen ni malaayka yi xool leen liñ wax su ngeen gisee seeni jam-jam seen yaram di toq ak deret te xet gi amee xetuk misk comme ni ko ñi dee ci sayid ñi sayid di defee su baa ngeen boole leen ci soodaaw yi bi ñu xoolee loola gis ni ñoom noonu lañ mel ñu ne ko sallallahu ne kon nag bu bu dalee jullit mu muñ ko te sàkku ci tuyaaba day doon ci moom yërmande te bu te bu ca faatoo itam bu ëllëgee dañ koy dekki bu buy dekki day day waale ànd ak ñi nga xam ne ñooy as dégg nga ashuhadaaw moo tax mu ne laysa min ahadin yaqau taaunu alayhi fa yam yamkusu fii xoola fa yamkusu la wax de fa yam yamkusu kon mooy na na toog na sax fii baladihi saabiran muxtasiba yaalamu annahu la yusibuhu illa ma kataba allahu la illa kaana lahu mislu ajri shahid li ma waxoon léegi ci wolof beneen bi ci topp nag nga xam ne moom itam ci yu mujj yi rek li ñuy jeexale mooy nag jàngal nañ ñu saxaaba yi jàngal nañ ñu ak maanaam xissa waxtaan bu doxoon diggante Seydina Omar ak de Abu Ubayda ak mbirum Cheikh Ibra Fall mii ma tudd léegi itam jàngal nañu ne maye nañ nit ki di jógee di di di daw dogal bu metti jëm ci dogal bu mettiwut ndax dogal boo xam ne ragal la mënees na ko dàqe ci dogal boo xam ne kóolute la ak mucc xaj xëy li ñuy bañ mooy mu mu mu mu fekk la fa ngay daw di génn waaye ginnaaw yow maanaam demagoo fa bu fa dem ndax man ngaa musal sa sa bakkan loolu yaakaar naa ne euh, moo tax borom xam-xam yu bare bari di tere ay béréb yoo xam ne mbas dafa am ñu di fa dem di fa voyage booba fekk na li ñuy tuddee alxajaru seyi booba xewagut muy maanaam quarantaine yi xew léegi waaye sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk jàngale saxaaba yi ñu pratiqué ko ñu bañ a naagu itam ci dégg nga yërmande yàlla lu mbas metti metti lu mu tartar nañ xalaat yërmande yàlla tey ñaan nag ñaan googu Cheikhul Khadim liggéey na ci lu rëy gis nañ li mu taalif ci ay xasaayit yoo xam ne xasida yi mbas la xasida yi maanaam ñaan mbas dégg nga jóge fi lu lu jiitu muy def ci ay xasaayit yu mujj di wax ne yàlla musal na ma musal sama njaboot ci mbas waaye dem na ba taalif xasida yoo xam ne sax da koo def spécialement jag jagleel ko rek euh, daq mbas te yaakaar naa gii ma yor nii da ci la bokk muy xasida goo xam ne bi mu koy bi mu koy maanaam tarjumaane dafa wax ne ay bayit la yoo xam ne dana wattu képp koo xam ne wattu na ko ci mbas mi ci baaxu yàlla te mu nekk juróom-ñaari bayit yoo xam ne ku ko ku ku ku ku ku bëgg a mucc war nga koo yittewoo ci mokkal ko mooy bi bi xaqi wacci kalkarimi yaa xafiid wajjih ila gayri ayaali al galid ila siwa xisbiya wajjihil waba yaa man safa an daiman lii wahaba li wajhika alkarimi laa tuwajjiha lii dararan wali munaaye wajjiha axatatta anni ya uyubiya maa yaa man munaaye lii bi amnin jamaa soo ko wax ne yaqii iyaaliya alwaba allahu qatan wa laa ilaha illa allahu dulmin maxa fa abadan laa udlamu wa abadan yaxaafuni man zalamu faja an ilbaaqi bi anfai surur xayru salaamahi ala alhaadi albashir kon ci barkeb xasida gi yàlla yàlla dàq fi mbas mi yi nga xam ne moom la ñuy dund sëñ xaarim nag xam naa boo ñëwee bëggoon na maa gën a xuus ci taxawaay Cheikh Mountakha ci euh, liggéey bi mu liggéey ci ci ci ci jamonoy mbas mi ba ci wàllu jumaa yi ak jàkk yi nga xam ne fexe na ba nos ko ba organiser ko suñu mbokki mu xadamata xidma yaa ngi nii toog gis nañ liggéey bu am solo yoo xam ne jàpp naa ne bu ñu ko li ñu jàngoon ci taarix jàng ko ci siira jàng ko ci dund Sëriñ Tuubaa danañ ci mën a sukkandiku ba xam fu ñuy teg suñu tànk ba jamono ñu mën a yóbbaale mbas ñu mën a yóbbaale natt duñu mën a yóbbaale maa ngi jégg lu baax a baax su fekkee guddal naa wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, jërëjëf barakallahu eh, Cheikh Maodo yaakaar naa ne eh, ñu yemee fii itam bu ñu yeman fii rekkit dana dooy sëkk ndax lépp li nga xam ne moom lañ bëgg na xam doon ko séentu jox nga nu ko ci anam goo xam ne sax jéggi na li nu xalaatan ci ak leeral ci anam yépp kon jërëjëfati jërëjëfati kon euh, ñu jox kon euh, sëriñ Massamba Bousso moom it mu ñëw eh, dugg ñoo ngi eh, sëriñ Abdoulahad Bousso <laughs> ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñu ngi lay sant bu baax a baax ñu ngi lay gis nañ sa taxawaay bu baax kon sëriñ Massamba eh, jërëjëf ñu jox la nga àggale sëriñ Abdoul Ahad Bousso Moukhaddamatoul Khidma mi ngi ànd ak noonu jataay bi bu baax a baax kon ni ngi koy sant bu baax di ko yóbbante cant ak ngërëm ci waa mbooloom yépp bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin alkarim wa ala alihi wa ashaabihi alghurri almayamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi wala ñuy dégg seen kàddu fu ñu mën a nekk di ci di ci jiital kilifa yi nga xam ne ñoo nekk sama wet ñoom ñëpp rek bëgguma tudd tur ndax damay ragal a bañ a matal di bu baax tamit ci waxtaan wi nga xam ne moom la fi Cheikh Mouhamadul Fadil joxe sànq muy waxtaan woo xam ne ne ko sëñ Xaadim waxee wax dëgg yàlla mën na sëkk mën na sëkk ci fam tàmbalee ci borom subhanahu wa taala ni mu fonkee doomu aadama ba tax att yu bari yëpp mu wàccee ko ak situation yu doomu aada mën a dund ay atteem rot ñëw ba tey ci wàllu histoire ci lislaam lu mu jàngale ci mbas ak ni ko saxaaba yi dunde pratiqué ak wàcce ko ba nga xam ne ba tey ñëw na ci Cheikhul Xadim bi mu nekkee ci njaareem ak bind yu bari yi nga xam ne mënees na koo jànge ci li xew diggante ñaari xew yu mag yooyu muy taaxoon ambaas ak peste bi nga xam ne moo xewoon ci réew mi rawatina ci njaareem kon yaakaar naa indi ci lu bees dana jafe lool xanaa dañuy jéem a rek barkeelu comme sunu xarit sunu sëriñ sëñ Mbàkke santoon nañu ko njàngaley lislaam e, day mel ne mën nañ koo xoole ci ñaari anam mooy wàllu sharia ak wàllu xaqiqa day mel waxtaan sañ fa lépp génnut foofu bind yoo xam ne sharia mooy fagaru ni mu ware ne ko lislaam jàngalee ak ni nga xam ne noonu lañ war a moytoo ak ni nga xam ne euh, noonu lañu noon noonu la euh, jullit ñi war a jëflante buñ nekkee ci jafe-jafe yooyu loolu yaakaar naa wax na ci lu am solo loo xam ne euh, tegtale tegtale ne lislaam ndekete moo jiitu lool médecine ci e, tegtal ak irsaadaat yi nga xam ñu ngi ñu koy jox jamono yiñ toll bi ci toppaat mooy e, lislaam ay njàngaleem dafa matale lislaam ay njàngaleem daa matale jamono yépp mbas sax amaana nit ki dund ba dundam jeex te du dégg mbas wala du ko gis waaye teewul li muy néew néew néew teewul lislaam moom am nay àtte yoo xam ne daf koo indi ba nga xam ne suñ diggee suñ duggee wala ñu gisee wala ñu dégg xat-xat yu mën noonu teewut ay njàngaleem mu leer nañ loolu lay tegtal lislaam ji ñu yor rek diine la joo xam ne diine ju matale la joo xam ne war na julli ni ñu ciy dellu ci seen mboolem situation yi nga xam ne ñu ngi koy dund ndax eh, mbas roqe woon na lool waaye daanaka booy xool lu ñu ciy wax tey rek fekkoon na lislaam jàngale woon ko ba noppi bu jëm ci quarantaine gi lu jëm ci ñàkk a daw gi lu jëm ci euh, ni ñuy war a moytoo wàll gi yooyu yëpp fekkoon lislaam jàngale ko ba noppi ba ci toppaat mooy lislaam ci boppam yàlla fu mu dañuy wan ay kiimaan yoo xam ne julliñ li julliñ li ñu ci war a jàmm jànge mooy gëmaat yàlla gën a dëgale seen pas-pas sanurihim ayatina fi lafaq wa fi anfusihim xatta yatabayana lahumu annahu alxaq te kiimaan yooyu yaakaar naa e, mbas mii ñu toll nii rek ku ci xool kiimaan yàlla gis ko ci ndax lu ndaw loo xam ne mbindeef mu tuuti la buñ ko doon natt ci nattukaay yi dañ ci tegale ay ay ay lim yu bari soo ko mën a gis ci sa bët wala nga ful ko ay yoon ay million soo ko mën a gis ci sa bët ba noppi mu mën a sonal àddina bi tax daanaka yëngutu yëpp dakk ñu bari loru ci économie économie réew yu mag yi daanu loolu kiimaan yàlla la boo xam ne comme jaaxalul leneen du la jaaxal waaye tamit nit ñi war a xam ne tamit yàlla daf ñoo jekku maanaam bu ma ko sañoo wax mooy doomu aadama seen borom daf koo jekku moo tax kiimaana fu ne la koy wane saa yu gis kiimaante war a tiit ndax xam gi xam boroom kiimaan googu ni mu amee kàttan ci moom wa ma nursilu bil tax illa taxwiifa mbir lu mu ndaw ndaw rek yàlla mën na ci feeñal feeñaal feeñal kiimaan goo xam ne doomu aadama bi xam moom day daal di tiit xam ne kat lu ne mën na ko fekk foofu noonu waaye tamit damay tënk rek di ndax sëñ Fallou yaakaar na matal na moom ca ay kàngam ñoo fa nekk waaye tamit mu jàngal ñu tamit ne ak faatu nga xam ne moo gën a rëy ci lu mbas mën a indi dee dee moo ci gën a rëy ci lu mbas mën a indi loolu ci boppam ci loxol yàlla la nekk nit ki mën naa nekk ci digg mbas ca dara du ko dar ni nga xam ne mën naa sori mbas ba tey def dee fekk ko fa loolu loolu yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ci aay yu baree bari ayna maa takuunu yudrikkumul mawt wa law kuntum fii buruujin mushayyada qul lan yanfa'akumul firaaru in farartum minal mawt minal mawt aw al qatl alam tara ila am na mu fasiru ñoo xam ne dañ koo firee ci ne ñooñu dañoo dawoon génn ngir ragal mbas mi dal leen waaye yàlla ne leen muutu kon suñ borom subhaanahu wa taala moom dogalam boo ko dawee tamit da ngay ci beneen dogalam euh, man nettali nañ ma dëkkandoo bu ñu dëkkal bàyyi muudu mbay ay nu yaakaar nañ ñu ba xam nañ ko euh, keroog bi mu faatoo rek ay njaboot ñu ngi koy nettaliwaat jamono mbas mi ci boppam moom daf caa dundoon te waajuram ci boppam moom ci mbas mi la faatoo la wax waaw waaye waajuram ci boppam doon na ko naam si moom jamono bi mu nekkee ci mbas koy nàmpal waaye dund am téeméeri at ak nàngam waaw ndekete e, mbas moom dogal la ci dogal yàlla rek nga suñ mën taxaa waxe waaye nag faatu moom e, yàllaa ko yor du ceegee ne mbas kese mooy faat waaye ab sabab la boo xam ne rek lislaam dañuy digal ñu koy moytu waaye nag ñu ànd ak seen gëm yàlla ba nga xam ne gëm yàlla googu nag moom dara du ko rekk ci ñun loolu tamit lu am solo la moo tax euh, euh, mbas mi jullit ñi dañ ciy gën a dëgëral seen gëm yàlla gën cee dëgëral dogalu bi yàlla subhaanahu wa taala xam ne ni ko suñ mu taxaw waxee rek mbindeef la ci ndigal mbindeef yàlla yi dañ ko jox benn mission benn muhima mu di ko dox ñu it ñu jox ñu ñu it seen waar wu ñu war a wu war a bay waar nag mooy ñu jiital gëm yàlla soog nag fagaru waaye ba tey lislaam daf ñoo jàngal de mbir mu ne ab jullit def ciy wut tiyaaba sëñ Fallu jàng na léegi xadis muy xadis Aïcha bi nga xam ne mi ngi saxiihul Buxaari yi bi Aïcha di wax yéen salaa salaam mbas salaa salaam ne ko moom day mbugal la ci yéefar yi waaye yërmande la ci nit ñu baax ñi daan na nag amut benn nit boo xam ne daa nekk foo xam mbas daf caa tàbbi daf faa tàbbi mu muñ sàkku tuyaaba lu may dafa am yoolub ku faatu ci xare nga xam ne ibnu xajar alxaafis ibnu xajar nee na xadis bi li mu tegtale kaw gi mooy ak doonte sax moom faatuku ca te wut am bu fekkee ne melokaan yooyu daje na ci moom ca mooy muñ na sàkku na tuyaaba moom am na yoolub ku faatu ci xare kon mel na ne am nañ posé am nañ occasion bu rëy ñun jullit ñëpp pour maa na mën a am yool jure jii nii kon loolu xéew la yàlla subhaanahu wa taala la waaw kon kenn ku ci ne war naa ba tey bu nekk ci yu demee noonu mu yeesalaat yéeneem mu ñaat gën a wutaat tiyaaba xam ne kat lii mën naa nuru lool lu metti mën naa nuru lu dooy waar waaye fekkitu yooyu yàlla buntu xéewale yoo xam ne da koy da koy ubbil ba tey lislaam dafa jàngal jàngal am solo mooy ndekete euh, maanaam projet lislaam yi ndekete crise du ko taxawal ay mbas du ko taxawal loolu lu am solo la ndekete luñ nekk nekk nekk ci mettit teewut toolu lislaam bi di continuer mbay mi war a continuer moo xam ci mbas yi wala leneen lu mën a doon waaye ab jullit daal du wërta gënal rek bàyyeendi ko noonu bàyyee bopp nga xam day mel ne nekkatul moom du jéem déedéet ab jullit du bàyyi ne ko mukk fa daatan wa raaxatan lan yuusira soxsun araad an yekoon moo sera nekk suñ tubaa jàngale woon loolu moo tax borom bis bi di sëñ sëñ sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha dañ ne sëkk misaal 39 45 ku xam ne kiris boo xam ne ñëpp dégg nañ ko waaye maanaam ay projet ñaata ñaata ci projet yi gën a jafe ci jamono boobu la ko def noonu kon kiris ndekete nekk ci wërta tax nit ñi ko nit ñi yaa fus waaye da war a gën a yokk la nga doon def ca góor yàlla yooyu nga xam ne seen gëm yàlla dafa dëgëroon ñoom yu baree bare ci seedaal yu rëy yi bañ koy def ci crise yu rëy yooyu ci lañ tolloon kon loolu lu am solo loo xam ne tamit nit ñi waruñu ne kat corona ñëw na rek wala mbas meneen mbas ñëw na tax ñu bàyyee di ko loolu baaxut yaakaar naa ba ci Touba ci kanam jii sax fi ne nii booy xool maanaam li ñu dajale fi mu ne ci xaalis ci jamono bu metti bii nii da nga doon jàppoon sax lii maanaam mënta nekk nit ñi ñoom it góorlu ba nga xam ne yaakaar naa liñ dajale ci jamono yi eh, ndéem mos naa mbind day dajale ko ci eh, jamono bu gàtt yaakaar naa yombul waaw ba ci toppaat mooy lislaam matal gi matal gu ma waxoon daa tax ay kiris ay jafe-jafe bu ñu ci nekkee daam ay àtte yoo xam ne àtte spécial la loolu moom xam naa yéen fuqahaa war ngeen cee liggéey liggéey bu rëy ba nga xam ne léegi daal comme jamono jafe lañ nekk jamono jafe lañ nekk wërta mel na nag jamono bi ñu nekkee jamono naataange bàyyi xel loolu bu baax a baax loolu lettre boo xam ne ci fuqaha yi la jëm donte <laughs> man bokkuma ci man yaakaar naa sëñ Fall misaal yi mu joxe sànq ci ne naa Omar ci amu Ramada dafa ubbi woon trésor ngir mën cee dimbale ñëpp loolu loolu moo ko waral ak lu siiw loolu ñu ne demoon na ba nga xam ne ku sàccoon jamono boobu sax du dagg sa loxo ndax ngir xam métti yooyu noonu loolu fi fiq la boo xam ne euh, mi ngi noonu fiqul azmaat <laughs> kon fiqul azmaat yooyu parce que yaakaar yéen fuqahaa yi war nga gën a bàyyi xel lool lool lislaam tamit lu mu am maanaam lépp lu mu dogal lépp loo xam daf koo digle xikma daf caa nekk al xikma ilaahiya jamono bii maa ngi doon di waxtaan benn benn scientifique ci taw yi daal Sénégal bi ma gisee ren ni mu ni mu gëjee taw taw yu bari mu ne ma bi mu koy jàngat dafa jàpp ne corona moo ko waral ndax bu dul dara rek maanaa jumtukaay yi ni mu taxee woon jumtukaay yi daa taxal jaww yi nga xam ne léegi oto yi léegi bëreetut dañoo taxaw saxaar si néew na ba ci avion yi dawatuñ léegi jaww ji daa tax léegi man dafa wàññi bu wàññi ko rek léegi taw bi maanaam pour mu bari luñ mën a nekk lay doon kon yàlla borom subhaanahu wa taala lépp lu mu dogal rek donte mën naa nuru lu metti julli bi jullit bi xam war naa am ngëm yàlla goo xam ne kat lii du neen moom waaw loolu lu am solo la ci mbir même xayawaan yi nga xam ne walla bàyyi wala dawaab yi nga xam ne yu nuru ay yu yu yu lora lañ teewul am na ay njariñ yoo xam ne bu ñu ko yàlla xañoon amaana du baax kon loolu lu am solo loo xam ne euh, lu mat a jànge la ci kiris yu demee nii beneen bu am solo mooy na ca lislaam bàyyi ko xel lool mooy ni buñ nekk ci jafe-jafe njiit dëgg fii lañ koy xamee buñ nekk ci jafe njiit yi bala ñoo joxe ay leçon ay bind ci wàll wax dañuy koy joxe ci wàllu jëf loolu la Seydina Omar ibnu Xattaab defoon jamono bu du jamono waxee jamono jëf la jamono maandu la maandu ga taxul mu dajale alal ju toll noonu ak jëf jooju mu wane woon ci ubbi trésor ñëpp ñi mën cee jariñu loolu la Cheikhul Xadim ba defoon ci njaaram jooj noonu ak alal jooju ngay wax waaye ba tey mooy ba tey jóge bi nga xam ne moom la Sëñ Muntaxa defaat kon lu am solo la loo xam ne njiit buñ koy tànn buñ tànn njiit loo xam ne buñ nekk ci naataange rek la mën a jiite waaye buñ nekk ci jafe-jafe du mën a jiite loolu musiba la jafe-jafe yi ci la ñuy xamee góor ñi waaye bis bu naataange amee ku ne mën naa jiite jigéen sax mën naa jiite xale mën naa jiite waaye nag bis bu demee ba jafe-jafe am fi fi ñu soxlaa njàmbaar fi ñu soxlaa xalaat foofu fi la eh, yëf yi feeñe dëggantaan kon loolu lu mat a bàyyi xel bi coppaat nag mooy ñaan ñaan gi nga xam ne moom nga moom nga tëje moom ñu julli ni li am moom suñu ngànnaay mooy ñaan kon lislaam ba tey daf ñuy soññu daf ñuy digal saa yoo xam nekk nañ ci jafe-jafe ñoo xam ne ñun kat ay mbindeef yu néew doole lañ yii ñuy def yépp ci mooy toog ci di sensibiliser nit ñeeg yépp ay sabab yu ndaw la rek waaye sabab bi gën a foor nag mooy ñu yeesal seen relation ak seen digal ak seen borom subhanahu wa taala xam ne moom mi fi indi jafe-jafe mën na koo tax mën na koo dindi saa yu ko neexee ñu jiitaloo loolu ba bari mën naa bàyyi xel ndax lu ci baree bari ñaaree bu ñuy wax wàllu moytu yeeg yu deme noonu bu zaahira rek la ñuy tudd waaye asbaabu baatina yi nag ñaare dañ koy neenal te yu am solo la ndax ñaar diggante ñaan ak tuub dellu ci yàlla subhaanahu wa taala ak yeesalaat seen pas-pas loolu mooy doole ji nga xam ne moo njëkk ci ñun jullit ñi loolu laa amoon ci loo xam ne Euh, matut njàmbaas ndax waxtaan yi moom riis na riis goo xam ne dara gën gi jisaakum la xeyran jërëjëf Seex euh, euh, Masamba Buso eh, mu daaxala bi nga def am na solo lool kon yaakaar naa alaaji sëriñ eh, waxtaan wi am na solo am solo goo xam ne jàpp naa ne liñ ci mën a jële ci ay bind lu bari la waaye daanaka mu ngi tënku rek ci ñaar yi nga xam ne sëriñ Fallu ci la tënk waxtaanam sëriñ Masamba bi mu ñëwee feddili ko muy li nga xam ne e yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñi mu àndalan jàngale nañ ko ci Cheikh al jàngale na ko ci ci ñaar yooyu nga xam ne bu lu mel nii amee mooy ngànnaay yi nga xam ne moom la ab jullit war indi te benn bi ñu wax ne muy mu jaanibu charia bi ak jaanibu li nga xam ne mooy xaqiqa bi te lu ci nekk lu nekkit Seyxul Xadiim maanaa jëmmal ko comme na ko e, yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi jëmmalan boo jëlsee ci gàttal ci Seyxul Xadiim e, ci wàllu sharia bi mm-hmm. sëriñ Fallu wax na ko ci bi nga xamee ne mbas mi am na ci njaareem te ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu kër docteur wax na kat lii ñuy wax muy distance yi ñuy wax ñoom waxuñu ko daanaka ci ay benn mètre même muy junniy mètre lañ wax un kilomètre parce que mbas bi ni mu demee woon ca yooyu jamono loolu rek moo ci mën a musle jëlee naa ci sëriñ Mahamoud Jigal mu jële ci sëriñ Madou Gajaga ñuy bàyyam xissa boo xam ne ci sëriñ xaadim Diop bu suñ mun sëriñ Cheikh ko laa ko njëkk a ñoom ñëpp ñu dëppoo ci ne bi mbas mi amee te sëriñ Balla Coro ñëw ci seexal xaddim ne ko ah ñi nga xam ne kat ñooy waa kër docteur commandant bi dafa wax ne li ñu wax mooy ngir nit ñi kat mën mucc ci biir mbas mi mooy képp ku ma dal fokk ñu yóbbu la foo xam ne dana dànd nit ñi loo xam ne dana ma junniy meetar nee na daf ko boole ak sëriñ Maxtaar Bintaloo ne ko àndal ak moom ngeen ànd ak kooku wax loolu ngeen dem ci penku bi ba mu wax leen fi nga xam ne maanaa loolu mën na faa nekk muy distance boobu ba leen ko waxee ba noppi nag ma mën naa dem yéen ngeen ànd dellu siwaat ne bi mu dellusee mu laaj ne ndax ama du Jigal ak Balla Fall yi ñi ngi fi buñ fi nekkee nañ ma leen nemikul nee nañu jàpp ay ndaw yónnee leen fekk sëñ Balla Fall yi dellu na jeere sëñ Ahmadou Jigal itam mi ngi siggi jaaj ndaw yi bi ñu demee sëñ Ahmadou Jigal ñoom ñëpp bi ñu déggee sëñ bi da leen waa ñoom ñëpp rek dañoo fëx boo xam ne ne sëñ euh, Balla Fally sax cee yoon wa lañ ko dabee aku fos yàlla dogal sëñ mat Jigal moo njëkk a ñëw ci waxtu timis la agsi ndax sigi jaaj ak euh, njaareem xëy na ci juróom-ñaari kilomètre lay toll fële nag mat na fanweeri kilomètre sëñ Balla Faali ci suba sa ci yoor yoor la ñëw léegi biñ agsee sëriñ bi yabal leen foofu foofee ñu dem ñu def fa ay mbaar yi nga xam ne fa la ñuy def la sare ba loolu kon di <laughs> firndeel na firndeel na loolu maanaa e, sëñ Ahmadou e, Gajega mi nga xam ne moo rekkan jëwriñ yi sëñ ma digal bokkan ca ñoo doon def mbaar ya moo ko nett li sëñ Mahmoud digal doomi sëñ ma e, digal ci boppam beneen bi ci des suñu Cheikh nga xam ne ci kër gi la doon dund moom itam moo ko nettali kon mu mel ni kon matuwaay yooyu nga xam ne moom lañu doon jël léegi distance yi ñuy wax ci na am ci ay mètres lañ wax ñee nag maanaa ñi ngi waxan un kilomètre Seyxul Xadim ci boppam maanaa non seulement d'accord ànd ca loola waaye joxe ndigal ci mbaar yañ fa doon def sax ñu def ko képp koo xamee ne ku mas loolu masaa dal kon dañu lay génne yóbbu la foofa ak maanaam ba ba ba yàlla def dogal bi ci yow ñu suul la ci anam gi nga xam ne moom la sëriñ bi waxam kon loolu kon jëfandikoo wàll googu nga xam ne mooy wàllu charia gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi dégg na noonu ñu ko waxee woon ndax itam alquran xuzu izrakum moo ko wax seexal xadim waxaat ne wakiir lu ci yàlla ci def li nga war a def lépp maanaa faggu jël say matuwaay wut ak wakkilu ci yàlla waaye min baabi tawakkul sax si si sunu borom subhanahu wa taala kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax beneen bi ci des tam te mooy bu am solo lool moo di e, alxuraan danoo jàngal ne e, lépp loo xam ne lu mel noonu ci mbaskat bu amee la ko sabab maanaa noo ko def sëñ bay jaxat firi ko musiba ak balaa yi luñ bari bari bu leen ko jooy ngir ngaaxi mooy yee ko xëri kon e, lépp loo xam ne lu nu dal ci mbas ak yi mel ni moom yépp alxuraan jàngal nenu ne comme ni ko Sëñ Fallu waxee léegi la ko sabab too ko def li ko sabab nag du génn ñaari yëf mooy lu nu yàlla mooy tandikuloo nu def ko nu lànk di ko def wala loolu yàlla sant nu di ko def nu nu lànk bañ koo def ñaar yooyu du ko génn te li nu yàlla tere nag ñu def ko la ca la ca jiitu mooy lim moom te bokk ko ak kenn ñu bañ ko ko bàyyee loolu moo waral ci xisa boobu nga doon wax ñu doon wax sëriñ bi lu ñëw lenn lu ci nekk da cay jàngale intervention bi sëriñ bi def aw ah, lu jiitu mu di ko def dégg ni ko sëñ eh, xisa boobu maa ngi koy nettali ci jamonoy Serigne Saliou ambassadeur moo ñu ko nettali mooy ci atumu màggal Touba da ñëw mu tajoree ak choléra bi choléra bi léegi ñu wax ne dañuy pompe am ay ñoo xam ne xëy na daal ba àgg ci barabu sëñ bii nekk am ñoo xam ne dañoo xaw a kilo la bi ñu agsee sëriñ bi ci boppam sëñ Saliou sëñ sa sëñ sëñ euh, sëñ sëñ Saliou euh, ambassadeur nee na noo ngi ndékkeendoo ak sëñ bi moom ak sëriñ Mamor Paka la nee na sëñ bi nettali leen la aman ci njaareem ba mu amee ne leen lu loolu laaj rek nañ ko def ca la ñu sëñ Saaliw waxee ne mbas boobee bi mu amee ca la nettali xasiida googu sëñ Mbay Jaxate maamam moom sëñ Saaliw nettali nee na bi mu njëkkee ñëw andi ko jóge xuru Mbàkke daa ñëw fekk sëriñ bi fatu sëñ Maxtaar si la de ko ah, ku baax day waxtu yu mu fatu bu ko masaa fatu xëy na suba te sëñ Mbay ndegam moom daara ja moom itam daa ñëwoon mu ne ah kon nag ne ko bu waax yi ñëwee baax yi dimbale ma ne ko Babacar moo fi ñëwoon bàyyi fi ndaw lii ne bi mu dellu see toog ab ay ay bis dara soppikuwul ca la doog a dellu siwaat ci yoonu ñaareel woowee nag bàyyi ba diggante timis mu tàng rek xasiida gi bi mu bi muy daaneel tasanteeg euh, euh, sëñ Mor Jaxate noddu mu bàyyi xam ne nag daa dem ca jàkk ja daje fa ak sëñ bi bi sëñ bi sëlmalee ne ana Babacar Jaxate ndax mi ngi ci jataay bi mu ne ko waaw mu ne ko mu ne ko toppal sama gannaaw bi mu agsee mu ne ko Babacar bataaxel ba agsi na waaye damaa fekkan ci liggéey boo xam ne moo gën ci te moom laa jiitaloon ci lu mën a doon ci wàllu wàllu googu nga xam ne moom gën doon sàkku te loola mooy damaa bëggan li yàlla moom te bëgg ko ak kenn bu àggee ci di ko def ñu bàyyi ko ba mu def coobareem ba noppi bu defee coobaram ba noppi nag lim nu bàyyee nu moom ko damay talal ko ay loxo ñaan ñu doog a ñaan mu ne ko nag Babacar jàpp naa ne jamono jii képp ku toq imaan nekk ci yow ku nekk xam nga ne yàlla rek yàlla muy jamono yooyee ndax tey la faatu foofa ak la xew loolu lépp sëriñ bi ne tekk bàyyi yàlla ak boromam ba ñëpp xam ne yàlla yàlla mu ne ko nag jagam nag loolee nag jàpp naa ne am na kon nag léegi moom tabarkaal mu jublu ci li ci des nag <laughs> la yëf yi léegi bi loola amee xam nga sëñ bay dellu siwaat nekk kat tey damaa ñëw di sant bay kii mu ne ko waaye Mbàkke lii boo ko gaayee woon le mu ne ko xëll ne boo ko bu ma ko loolu nga bu ma ko gaay li ma doon bañ liggéey boobu ma doon du sotti ndax da ngeen jël lu yàlla moom moomale ma ko mm-hmm. loolu nga xam ne sëñ bi sëñ bi taw it boobu nga xam ne xam na ne bokk na ci li nga xam ne li ndax yàlla bakkaar bu nekk nag wala tooñ gu nekk nee na mën naa koo jéggale ba mu des nag li ma moom ku ma ko bàyyi ku ko bàyyi wut ak man lu nekk léegi nag kon sëriñ bi ci boppam lu ñëw lu ne rek daf cay am lu mu ci jàngale waaye bi mu jàngalee loola ba ba ba ñëpp xam ko ba noppi rek la xam ne nag ab cëram la cërub doomu aadama ak may gi ko yàlla may nag gis nga ko feeñale waaw ni mu ko feeñale pour ni mu ko feeñale ci def ca lu yéeme loo xam ne wane na ne su am na noonu intervention ba su ko defan sax du agsi foofa am lu mu doon lu mu doon lu mu doon jàngale loo xam ne fokk mu am ca kon mu mel ni kon mbir mu mel nii bu amee waxtu wenn wu nekk kon war nañ cee am lu ñu ci jàngee bu baax a baax kon war nañoo jël ñaari matuwaay yooyu mooy li nga xam ne moom la ñu charia euh, sant ñu def ko li nga xam ne moom la ñu aqiqa digal ñu def ko loolee nag moom la sëriñ bi def cee ñaari anam yooyu ba ci ndimbal loolu Cheikh Mouhamadoul taxaa comme ni nga ko waxee bi mu agsee loolu njëkk a def bi mbas mi amee li mu njëkk a def mooy bu njëkk bi nañ delluwaat yàlla santaane ñu jàng ay kaamil alquran def ay ñaan sakk ay sarax dellu ci yàlla tuubal ku jéggal ko loolu moom la njëkk def mooy action bi mu njëkk a santaane ba ca desaat nag muy matuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël xam ne ne lii dana am ay conséquences yu mu war a àndal ci wàllu économie ci wàllu ñàkk ñàkkum xëy ak tumaraanke gu méttee métti goo xam ne nit ñi danañ soxla ku leen dimbale léegi nag moom lu jiitu muy digle wala muy sàkku naan ci nguur gi naa leen dimbale leen déedéet moom ci boppam na joxe exemple ci loolu parce que jéem a moom di Serigne Touba noonu la daan def au ngay diggal nit ki defal kon mu daal di jëkkati lim boobee nga xam ne moom moom moom la yëkkati jox ko ko ngir moom mi nga xam ne tey moo jaboote ñëpp ngir mu mën a àgg ci ñëpp loola kon bind la boo xam ne jëm na ci ki mu ko jox ak ñi mu ko jox waaye jëm na it ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy bindeef yi ci solidarité bi nga xam ne moom lañ war a am ci ñi nga xam ne tey mbas bi yóbbu na leen foo xam ne tey metti na lool ba ñu ngi dund ci ay jafe-jafe loolu muy muy muy taxawaay bu am solo boo xam ne bu mu ca def waaye ci wàllu fegu gi biñ ci àggee xoolal li mu santaane eh waa Muxaddamatul Xidma ñu ngi nii bi nga xamee ni mbir mi am na te nga xam ne docteur yi dañoo wax ne lii kat. moo ci mën a musle te alxuraan ne fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun waxaat ne xuzu israkum jël leen seeni matuwaay a ah, léegi sëriñ bi bëgg a boole ñaar yooyu yëpp ah dañ gis ne ñaar yooyu yëpp yàlla def na tawfiix ba mën naa nekk ndax jàkkay sëriñ tuubaa jii it ñu tëj ko lu diis la ci Seex Muhammadul Muntaxa waaye ñàkk a ju ñàkk ànd ci lii muy exposé nit ñi ci danger bii diis na ci moom waaye yàlla def tawfiixi ñu xamal ko ne ko e yàlla dogal nakat kat li fiy jullee li fiy nekk en permanence nga xam ne e cinq dana leen fi fekk te ba la ñu fay jóge léeg-léeg di waxtu yépp la di fekk e mat nañ lim boo xam ne sax ëpp na lim bi nga xam ne jumaa dana ci façon kon ñoom mën nañ fiy julli lal xam nga dafa santaane ñuy def loolu foofu waaye nag sàmmoonte ak li nga xam ne mooy ak yooyu waaye yeneen jumaa yi nga xam ne moo des yépp ci biir Sénégal dafa digle nga xam ne sart boobu dajewut dafa jël ñu jël ci matuwaay yooyu ñun keroog ca Dakar def nañu conférence de presse waxtaan ba ne suba dañuy julli ci jumaa Njaaréem 11h ci boppam la sëñ bi woote biñ ñuy woo ñun man ak sëñ Xaadim loo mënuñoo dem parce que sori nañ te kooku pour pourtant docteur yi def nañ seen jataay ba àggal ba ne ah léegi kat jumaa ji bu ñu jullee parce que comme jumaa yi nekk fii yépp ci jumaa yi suñu bokki këri diine yi ci des lu ñu julli suñu jullee ñun maanaam mbooloo mi dana dema dem ba dana mel ni sax ubbite la ba matuwaay yi ñu war a jël duñ ko jël waaye ah teewul eh, muy masaalikul jinaan waaye teewul bi ñu demee ba def eh, point de presse ne suba dañuy julli ci 11h la sëñ bi téléphoné ñu mujj delluwaat kiiwaat muy jumaa jooju di jumaay Ousseynou euh, Ousseynou ñaari tëli bu suñ Samb Somi di jumaay suñ suñ suñ suñ Modou Gueye Parcelles Assainies di jumaa suñ Cheikh jumaay ya fa nekk yëpp loolu la ci sëñ bi santaane ba ci jumaay njaareem ji kon muy matuwaay yoo xam ne kon eh, li nga xam ne moom la ci euh, sariya santaane eh, doxal na ko waaye li nga xam ne it moom la moom la jamono laaj it def na ko ci ba ci tey keroog bi muy bi ñu koy indil fii ci jumaa ji muy julli si ñu andil ko paan bi ak ak ak savon ak musuwaar muy raxasu kenn ku ne xam ne loxoom yu sell yooyee lu ñuy raxas newu ca luy wàllee nekku ca waaye booba it aw yoon la doon wane ba ci tey masque bi nga xam ne moom lay takk tey donc kon loolu lépp tey boo ko seetee moom itam eh, eh, jëmmal na kon li nga xam ne moom la yonente bi jàngale waaye jëmmal na it li nga xam ne moom la xaadima rasul eh, jàngale bu ko defee nag ñun loolu lépp ñu war cee ñu war cee war a roy ndax amuñu nag lu may alquran ak sunna muy njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi ak njàngaleem xaadima rasul ak njàngaleem kii nga xam ne moo fi nekk wuutu fi xaadima rasul muy faw nañ boole ñaar yooyu mooy nañ jël matuwaay yi nga xam ne moom la war a jël eh, waaw moom la ñu war a jël bool bu ñu noppee nag li nga xam ne mooy ak ñaan ak dellu ci wàll delluwaat ci yàlla ñu def ko kon yaakaar naa ne loolu rek mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy liñ ci doon liñ ci doon kii matta sa ki ci saakum laax jërëjëf jërëjëf sëñ mi am na solo lool jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Fàllu yow itam waxtaan wi am na solo sëñ Masamba Bousso Abdourahman ak taaqib bu am solo bi mu ci def mbokk yi xam naa bala ñoo ñëw ci kàddu gu mujj gi muy kàddu sëñ Mahmoudan mi nga xam ne mooy def ñaan gi dañuy yeesalaat rek sunu jégglu ak itam masaw gu ñu leen masaw coono yi gis ngeen xaw naa guddi suñu xaar bi sax ko dagg ne ko xaw naa guddi euh, ndax xam ngeen rek fi jamono ji toll une fi mu toll nii jot na te normalement mi la ñu waroon a jeexal waaye léeg-léeg waxtu ak ni muy demee gérer ko du yomb ak bisub tay bi ni mu xatee nawet bi fu ngeen jógee ni muy sore kon ñu ngi ñu ngi jégluwaat bu baax a baax mbokk yi euh, ñu ngi sant mboolem ñi fi teew ak ñi amoon yéene teew fi te xëy na euh, teewuñu di ci jiital sëñ Mahmoudane mi nga xam ne moom moo fi teew ci turu sëñ Abdourahmane teew ci turu sëñ Moustapha euh, te moom laa wax ne moom mooy joxe kàddu yu mujj yi ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal di santaat bu baax a baax euh, sëñ Fallou mi nga xamante ni moo doon def waxtaan wu am solo wi sëñ Fallou nag wax naa ne doon ku ñuy présenté ndax nitu xam-xam la maanaam ku yàgg gëstu la ci lislaam ji en général ak ci yoonu murit te soo gisee ni mu defee waxtaan wi rek da ci feeñ bu baax a baax ci mu retracé fi daanaka histoire euh, épidémie yi fi am ba ci jamono jii ñu toll ci lislaam loolu yëmbut euh, ñaare euh, jàng rek du la ko may waaye itam xam ni nga jàng dana ci dimbali sëñ sam sam sàmba moom itam ak njàngat yu am solo bi ci def muy tënk yu am maanaa yoo xam ne dana valable ci jamono ju ne waaye jamonoy mettit ak tànk-tànk ci lay gën a valable sëñ Xaadim ñëw ak ni mu ko wàccee nii ak sëriñ bi li ci xewoon ak sëñ Muntaxa mi itam wax dëgg yàlla jataay bi am na solo lool li taxoon ñu ne mënuñoo ñàkk a def euh, rencontre Daaru Xudoos bi lii la ndax lii xëy na ay ñennat ñoo fi ñëw waaye su tasaaroo dana danañu xam ne naka jekk lislaam yàgg naa sonni yàgg naa yitte wooy intérêt yi doomu aadama yi ak fu ñu mën di nekk ak jamono yu ti doon kon jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax itam te sañ sëñ euh, Gàdd Sall mi nga xamante ni mooy secrétaire généralu euh, fédération bi ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal di sant sëñ inspecteur sëñ Saam Bousso Abdourahmane yàgg naa ànd ak ñun jataay yu baree bari li muy xat-xat ñëw na loolu itam dana ko wax ci sëñ Fàllu mi ndax euh, ni mu demee sëñ Masamba Bousso ñu ngi lay a baax sëñ Ibrahima Lo moom taayib mooy kii ñu ngi koy sant ak mboolem ñi nga xamante ni ñoo bokk ci suñu école yi Daaru Xudoos yi sant bu baax a baax waa Fatxul Mannaan sëñ Abdou Qadir Bousso mi nga xam ne moo tàmbali jataay bi ci xoqal bu kaa xas euh, bayit yu am solo yi mi ngi ànd ak sëñ maam sëriñ Ndiaye Eh, moom itam eh, wax dëgg yàlla gis nañ seenum taxawaay ak nu mu rafete jërëjëf ñi ngeen jëf sëñ Fallou Kébé mi ñu àndal itam ñu ngi leen di sant ñu ngi sant waa muqaddamatul xidma sëñ Abdou Lahad ak mbooleem ñun ñëpp ñi mu àndal muy sëñ sëñ Abdou Lahad Bousso Afia ak sëñ Cheikhouna Mbacke sañ Fallou Mbacke sëñ Abdou Lahad Jatara eh, sëñ Moor Mbacke sant itam sëñ Mbacke Diop sëñ Mbacke Diop Xudar mu teew fi jota kii bare bari wax dëgg yàlla moo xam alxalil la wala soxna bàjjen may ak euh, waa saalihaat ji fi ñëwoon ñu ngi leen di sant bu baax a baax waaye nag di jagle sant ak cant alaaji Moussa Mbàkke mi toog muy sunu wëllëre di euh, ku nekk euh, université jamaat islami bu almadinatu munawara dafa jàng muy ni ko ko ku gëstu ak yëngu ci xam-xam ñu ngi koy sant bu baax a baax ak jamono ji muy xat-xat Oustaz Mouhamed Diagne xam ngeen ko te surtout ay ajag lu yëngu ci yooyu yëpp mu sonn ci lool moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm Euh, di sant ñi nga xamante ni ñoo fi teew tey jàllale waxtaan yi muy Wilaya TV euh, Ndindi Act euh, assalaam TV Siweul point net ak mboolem ñi nga xam ne dañu koy jàllale fu ñu ko mën a jàllale. léegi nag li ñuy def mooy dañuy tëj kàddu yi ak kàddu sëñ Mahmoudan mi nga xamante ni moom mooy def ñaan gi su ko defee ñu daal di jàll ci kaw xew lu def du ma wax yëf yi ñuy sant si ndax ay kii lañ waaye kon ñu wax yëf yi ñuy sant mbay xam naa ne gudd na lool ñenn ñu dañu xaw a xiif. waaye ñu ngi jégluwaat baax a baax di sant di gërëm kon bisimilah